auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni aizuha bika wa zuriyataha min asheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatin wa auzu bika rabbi an yaxdurun mbokki yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi nga xam ne yéen ñuy topp sunu seen bi di TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaajëfal di wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi te di ko zem di yaatal yi bu baax a baax te ko aimé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal jàmm ji sax dàkk barkeb alxuraanu karim comme nañ ko baaxoo def saa su nekk ci sekkar yi leen di jàll leen ci sunu seen bii nga xamante ni bii mooy Diwane TV di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ak kilifa yi su mel ne Serigne Bara Jaxate Touba ñu ngi koy ziar bu baax Serigne Ñanger ñoo ngi lay ziar bu baax moom itam Touba ah Serigne Babacar Mbaye Mbaleen ñoo ngi lay ziar bu baax Sané nekk Ziguinchor ñu ngi koy ziar bu baax Salif Sané bu baax a baax. ziar baax suñu waajur Sarr moom itam nekk gore ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ziar bu baax a baax a baax mbokki bi yi nga xam ne bii ñëpp ñu ngi ñuy topp te di ñu bàyyi xel di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk barkeb alxuraanu karim tey ñu indil leen loo xam ne dafa jëm ci wàllu bayre bayre bayre bu am doole incha allahu rabbi laata loolu yéen ñi nga xam ne yéen a nekk réew tey dugg ci biir tubaab bi. am na secret bu leen dencal boo xam ne bii képp ko soxla ñu liggéeyal la ko incha allahu rabbi mu doon secret yoo xamante ne bii ay raw xaan yu am doole la nga xam ne bu ko nit ki amee benn bi mu takk ko benn bi mu sangoo ko ci kàttanu ak suñu borom lu wax tubaab bi des na ko def ndax tubaab bi dañ koy déggal lool da leen di not maanaam secret bu ku ko am te nekk ci biir nasaraan si deen la déggal lool deen la bàyyi xel te te danga leen not ba nga xam ne loo bëgg si rek danga koy am. tam doon nag secret bu wér boo xam ne mbirum rawxaan la mu doy waar ay turi yu kéemaane kéemaane la karaw nag lay àndal képp koo xam bëgg na ko rek bu ñu woowee incha allah des na ko mën a liggéeyal jàppandal ko ak fu mën a nekk libération gratuite yéen ñi xam ne ne bëgg ndomba reesal gi muy ndomba nga xam bu ko nit ko amee te nekk si jafe-jafe moo xam mu yoral nit dara loolee yàqu ci loxoom te kooku di ko stop bëgg koo dugal kaso incha allah bu doon un milliard la laa wax du mujj fenn te li gën a yéeme ci ndombag yi daa ànd ak kaaraange goo xam ne danga nga mel ne gaynde ci biir seen biir la mu saf nag ko maj ko mën a xam te ma zahid na illa bi ma alim na waaye ndomb googu ndomb gu kéemaan la mooy ndomb resal gi nga xam bu la dénkoon un milliard nga lekk ko tam yaa ngi ndomb gi moom bu saba suñu borom du la dugal fenn foo ne fu la neexul moom bu yoree leen sax dina la ko dénk ci kàttanu suñu borom ak ndombe nga xam ne moom ndomba wuute la nga xam ne doo fekk coow mukk ngay dem rek. ñu la sawaay yow bi nga demee la nangam am bi nga demee la fi policiers yi bi nga demee la diw ak diw doon xeex ba diw def ko nangam waaye coow moom doo ko fekk mukk loolu mooy ndomba wuute am na waaye ndomba gi nga xamante ni bi tam mooy ndomba nga xam ni loo def moom kenn du ko tudd li ci gën a neex nag daa ànd ak di xëcc wërsëg waaye loo mën a def sang bi dama ni lu mën a doon kenn kenn kenn du ko tudd wallahi al azim ndomba googu nag du ñëpp leen koy liggéeyal du ñëpp nag lañ koy liggéeyal waaye ndomba gu doy waar la waaye ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaara bi xam naa ni moom yi yittewoo ngeen ko lool ci taxawaay beeg woote gi nga xam ne ñu bari day dem ba sax dama mën a jël seen commande ndax xat gu ma ci xat waaye ku ko am ku nekk da nga xam ne am nga lu kéemaane incha allah jaara la boog boo xam ni day yëngu ci wàllu wërsëg te it dool la ci kooku Mbacke bala jaaxa maa ngi ziar baax ne kay damay def benn vidéo akañ day xëcc mbooloo boole si te it xëcc wërsëg ni nag mënta xam loo xamante ni bii yoru ko incha allah ku ko bëgg xam naa ne sax yittewoo ngeen ko ndax boob ba na ngeen yi ak ñi woowet gu nekk di ñu ko laaj waaye incha allahu rabbi képp ko bëgg rek na def ko maanaam incha allahu rabbi ñu dem koo jàpp ndalal kon bokk ñu dem ci li ñu tax a jug mooy boobu ngeen di gis ginnaaw boobu boo bindee bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam nga def wallahu xayru xaafisin wa huwa arhamur rahimin wallahu xayru xaafisin wa huwa arhamur rahimin nga tëral xaatim bi nga dugal ci adadu naas muy cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze ci digg bi ba pare na da nga suufus jumaa ak suufus marché ak xobi rand ak tojitu seetu xobi rand ak tojitu seetu ak deru tama tama gu noon tëggee ba mu ba mu xoteeku nga wut der ba ak cuuraay liban def ko ci butéel bu weex butéel bu weex koy def di ko diwoo ci wàllu bayre la ak ubbikaay incha allahu rabbi képp koo xamante ni bi tam mënu koo liggéey bu ko joxee borom xam-xam ñenn ci borom xam-xam xam den ak ñoom des na ko mën a liggéeyal incha allahu rabbi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ni ngeen wéy di abone tey partager vidéo yi te di ko emee di leen ñaanal jàmm ji sax dàkk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.